maa ngi leen di siyaar si nekk ma dala jox sa wàccuwaay yaakaar naa jeudi moom euh, tur Casamance la ñu jëm pour lu jëm si wàllu mbirum Ousmane Sonko bi ñu bëri nag yaakaar na ni mu xewee Cour suprême noonu lay xewee fële déedéet pourquoi ngeen xalaat loolu ah li tax ngeen xalaat loolu wala da ngeen yaakaar ne juge boobu mënoo tranché jox Ousmane Sonko dëgg voilà. mu wala boog dëgg gi féete si côté Ousmane Sonko lan moo tax ngeen ne <laughs> déedéet ni mu ma demee Cour suprême noonu lay demee Casamance attention déedéet yàlla ay mbiram dafa yéeme de dama ne fu mu nekk ne Ousmane Sonko mbiram yëpp yàlla sax moom yàgg naa te ay mbiram waaye ñi mu ko seqal peut-être dañoo nekk nit ñaa xamante ne duñu xalaat parce que dañoo yaakaar ne à travers leur pouvoir bi leen yàlla jox mën nañu am li ñu bëgg. ngir toog si réew mi fekke déedéet yàlla am na beneen programme bu dul boobu yàlla am na beneen programme bu dul boobu te li ma leen wax nii neen dem ba si kanam yàgg na ma leen kaa wax moo tax ba kenn foog ne ni mu demee Cour suprême noonu lay demee turbine euh, fële Casamance nit ndax am fa yàlla yemale président surtout nag boo nekkee président nga yaakaar ne tu as tous les pouvoirs donte ne sax may nañ la pouvoir yëpp yu bari yaay dogal waaye dafa am lu nekk sa kaw dogal mooy suñu boroom te foofu lañ toll ak Ousmane Sonko nee naa leen ngeen téye seen carte d'identité préparé parrainage yi Sonko Ousmane Sonko ñetti yoon la wax turam yàlla sedde na ko ak waxtu maam yàlla bi may wax ak yéen nii ndam lu set wecc lay am si ñii. billahi lazi la ilaha illa huwa moo tax chaque jour ma leen di rassurer chaque jour ma leen di rassurer rassurez-vous xeex nañu xeex xeexat xeexati gis ngeen fii xeex bi mu mujjee yàlla nag noppi na moo xam nan lañuy def ba sauver Ousmane Sonko jëlee ko ci loxo yi ginnaaw bu mu nekk si dëgg ak tooñ gi ñu koy tooñ li ci ñu kanam rawali gët yal ñu yàlla deful sutura te may ñu ñu fekkee lépp encore une fois ñu ngi ñaanal ndeysaan menace may mën a Sadio boobu tey sama xel lu jóg si moom yal na ko yàlla yërëm elle était une combattante yal ko yàlla yërëm